أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla doole xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy darsu al ishrun darsub ñaar fukkeel ñu dugg ci buntu qawluhu taala hatta iza fuzia an qulubihim bu ñëwee ci bunt bi sunu boroom subhanahu wa taala di misaal malaaka yi suñu tiitee ngir yàlla ba tiitaange googu jeex malaaka yi lan mooy nekk seen taxawaay sunu darsu tey mbokk jullit yi dinañ ci jëlee ñetti mbir importance su joxe dars bi ñetti njàngin lañ ci war a jàng tey bu njëkk bi mooy an yasifal muslim doful malaika inda takallumillahi bil wahyi tomb bu njëkk jullit di ko jëlee ci darsu tey mooy mu yëg ne malaaka yi ñu lottu lañ ñu néew doole lañ ñu amul benn kàttan lañ ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu yàlla di wax ak ñoom ne malaaka yi dara lañu mënul ci kanamu yàlla loolu mooy lu njëkk lu ñu war a jàng tey ñaareel mooy an yastanbita al muslim ar radd ala man abada al malaika wa gayrihim tey dinañ jëlee ci dars bi ñuy jàng ñuy mën a tontu bis bu nekk waxtu bu nekk place bu nekk barab bu nekk ñuy wax ne wala ñuy yaakaar ne malaaka yi dañ leen a war a jaamu ndax ay jaam lañ yu sell ku sell boo ko màggalee sell ñooñu di wax loolu tey sunu dars danañu jural ñu leen di mën a tontu bu baax a baax a baax a baax a baax ñetteel mooy an yakshif al muslim butlaanu sihri wal kahana sunu dars tey dinañ ci jëlee dinañ wuññi dinañ génne sekkere yoo xam ne lenn islam daf ko yàq ci lenn li nga xam ne ay njabar ak ay buxaaba danañ ko def ak ñoom seen buxaaba boobu ak seen njabar googu fan lañ ko jële bu ñëwee ci madaxal lil baab dugg ci buntu dars bi dinañ gis ne almalaika min ibadillah yaxaafuunahu wa yaxshawna wa kadalika alsamawat wa gayriha min almaxluqat wa fi dalika dalalatun ala adami l istixqaaqi hadihi almaxluqat wa gayriha lil ibada wa anna allaha huwa almustaxiqu lil ibada waxdahu duna siwa mbokk yi buñ ñëwee ci bunt bi nga xam ne moom la ñuy duggee ci tomb bi danañ fekk ne malaaka yi ci jaami yàlla yi la ñu bokk min ibadillah malaaka lan mooy malaayika man humul malaayika malaaka yi léeg-léeg nga dégg ci arab yi lenn ñu naan ay doomu yàlla la ñu jigéen lu tax ndax xam ngeen ne ci làkku arab def ci bëri ci fin bi tur yi nga xam ne dafa am taa ñu leen ne ay jigéen lañ comme fatimata xadijata aysata malaika comme dafa am taa taa boobu nekk fee moo nekk fii ñu yaakaar ne malaaka yi ay doomi yàlla la ñu jigéen déedéet yàlla amul doom bu góor amul doom bu jigéen malaaka yi ay mbindeef lañ di mbindeef yàllaa leen bind waaye ñoom malaaka yi yàlla nim leen bindee ak ñun yàlla nim ñu bindee ak ni yàlla bindee jinne yi du benn dafa am différence ñetti mbindeef lañ yu bokkul fu ñuy dund malaaka yi ñu ngi dund ci kaw asamaan doomu aadama yi ñu ngi dund suuf jinne yi ñu ngi dund ci biir xur yi ak géej yi malaaka yi yàlla mi ngi leen bindee leer jinne yi yàlla mi ngi leen bindee safara doomu aadama yi yàlla mu ngi leen bindee suuf jinne yi iblis bokkul ci malaayika yi malaaka yi ak iblis bokkuñu dara nit ñi bokkuñoo ak iblis bokkuñoo ak malaaka yi malaaka du lekk du naan malaaka du sëy malaaka xamul bànneex ñoom malaaka yi ay jaamu yàlla lañu yoo xam ne yàlla moo leen teral ñuy ñu tedd du ñu moy yàlla lu dul yàlla lu mu leen digal ñu def lu mu leen tere ñu bàyyi te danañ gis ci biir dars bi ñoom malaaka yi bu ñu déggee santaane yàlla santaane yàlla boobu lan la leen lan lay def ci ñoom al malaikatu min ibadillah malaika yi ñu ngi bokk ci jaami yàlla yi alquran moo ne in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahman abda ku mu mën a doon ci kaw asmaan ak ci suuf sooy dikk ci kanamu yàlla ëllëg yowmal xiyaam jaam ngay nekk kon malaaka yi ay jaam lañ yaxaafunahu dañuy ragal yàlla ñoom malaaka yi wa yaxshawnahu dañuy tiit ci yàlla subhanahu wa taala naka noonu asamawaat asamaan bi mbindeef la ci mbindeefu yàlla yi wa gayriha min al maxluqaat ak yeneen lu dul asamaan géej jant weer biddéew doomu aadama garab yooyu yëpp mbokk yi ay mbindeef lañ ci mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala ci lii danañ ci jële lu leer kon bu fekkente ne malaaka yi mbindeef lañ asamaan mbindeef la suuf mbindeef la jant mbindeef la jinde mbindeef la doomu aadama mbindeef la est ce que kon doomu aadama war naa jaamu malaayika bu fekkee malaaka mbindeef la tontu bi mooy kon déedéet kon ñu yëg ne ki ñu war a jaamu wa anna allaha huwa almustahiq lil ibada kon ñu ñëpp ñu war a yëg ne yàlla lan war a jaamu kon kenn warul jaamu malaaka yi yàlla lan war a jaamu allahu subhanahu wa taala waxdahu duna siwa waruñoo jaamu leneen yooyu ñuy wax ne ku tedd boo ko màggalee tedd wala nangam ku def lii yooyu yëpp wax yu yàqu la bu fekkoon ne war nañoo jaamu kon yàlla joxoñ nit ñi malaaka yi ne leen malaaka yaa ngi nii ndax ñooñu duñu lekk duñu naan duñu ay nit duñu moy yàlla waaye terewul kenn du leen jaamu ñëw na ci xadis abi hurayra radiallahu anhu mu ne عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير آية بو من سورة السبع آية 20 آية 23 ñoo ci sahih ñu jëlee ci Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iza qada allahu al amra fi samaa yàlla bu dogalee dara ci asamaan si yàlla buy dogal mbiram ci kaw asamaan yàlla di def dara loo xam ne mën naa ñëw ci suuf mën naa dem ci géej mën naa dem mën naa mën naa mën naa mais yàlla moo namm dara bëgg a def dara ci ay mbiram luy xew mu ne darabatil malaikatu ajniha ajnihataha malaaka yépp dañuy wàcc duur seeni laaf ci suuf wàcc mel ne bu doon doomu aadala mu doomu aadama la mu wàcc ay mbaggam rot ci kanamu yàlla daal di sujjóot lu tax mu ne xudaanan li qawlihi ndax malaaka yi dañuy rot toroxlu ci waxu yàlla boobu subhaanahu wa taala wax lu tax mu ne ka annahu silsilatun ala safwaani mu ne mi ngi mel ne wax jooju yàlla di wax ak malaaka yi dafa mel ne malaaka yi niñ ko sentiré mu ne dafa mel ne ndox mu ñu sotti ci xeer wu ñuul wu rittax mi ngi mel ne xeer yooyu ñuy tiime noonu ñu rittaxee loo ci teg day taxaw wala day wàcc day wàcc noonu la wax jooju rittaxee dugg ci xolu malaaka yi allahu akbar hatta ñoom ñëpp su loolu amee lu ñuy def malaaka yi dañuy xëm wax ji ñu dégg wax yàlla rek daf leen di xëmloo suñ demee ba ximmiliku hatta iza fuzia an qulubihim suñ demee ba ximmiliku ñoom malaaka yi dañuy toog di laajte qaalu maaza qaala rabbukum nga dégg ñuy wax lan la yàlla wax parce que ñoom bi yàlla di wax rek bu ñu déggee wax ji rek dañoo rot ñoom ñëpp daal di xëm bu ñu ximmilikoo la ñuy doogalaat jibril wala ñu laaj ñi nga xam ne ñoom amoon nañoo kattan ba xamuñu ñu ne lu yàlla wax ñooñu ne leen qaalu alxaq dëgg rek wa huwa al aliyul kabir allahu akbar mbokk yi ci aaya bi nekk suratu saba aaya 23 ci la ñuy jàng ne al malaika ibadun mukramun malaaka yi jaamu yàlla yu tedd lañ yàlla moo ko wax subhanahu wa taala mu ne kiraaman katibin yaalamuuna ma tafaluun yàlla nee na malaaka yi ñu tedd lañ sunu borom subhanahu wa taala mu ne moom moo bind malaaka yi ci leer wa aataahum min alquwa wal azama yàlla jox leen kattan yàlla jox leen doole est-ce que xam ngeen am na ci malaaka yi ñoo xam ne mën nañoo yëkkati suuf sépp ak seeni laaf yóbbu ko kaw asmaan yàlla am na ci malaaka yoo xam ne dëkk yi mu doon alak day yabal benn malaaka rek ku mel ni jibril ne ko demal nga alak ma waa dëkk sangam am na ñoo xamante ne malaaka laaf la leen dóor rek seen kanam yëpp daal di masar kenn gisatu ci dara amatuñu bët amatuñu bakkan amatuñu gémmiñ benn pes rek la leen pes ñu yàqu am na dëkk yoo xam ne malaaka da leen a xaacu ñoom ñëpp ñu wow koŋ daal di dee da ngay jàng ci tafsir ñu naan suuf si dafa am malaaka bu ko yenu ni mu toll nii suuf si dafa am malaaka bu ko yenu léeg-léeg nga jàng subhaana wa taala ne malaaka yi am na ci ñoo xam ne am nañ laaf ñaari laaf am na ci ñu am ah ñetti laaf am na ñu am yàlla mu ne wa yazidu fil xalqi ma yasha lu ko neex mu def kon malaaka yi lu ñu njëkk a xam mooy ay borom kàttan lañ duñ ñu ndaw borom kàttan lañ waaye borom doole lañ allahu akbar kàttan goo xam ne maa laa yaalamuhu illa huwa yàlla rek moo xam doole ji fu mu yem lahum min as-sifaat mu ne laysa lahum min as-sifaat ar-rububiyya wal uluhiyya waaye nag seen melokaan yi yëpp ak seen màggaay ak seen réyaay yoruñu benn melokaan ci melokaanu yàlla wala melokaanu yeyoo boroom bi amuñu benn melokaan boo xam dafa war a tax ñu def leen ay yàlla wala dafa war a tax ñu war leen jaamu donte ne dañoo am doole donte ne dañoo am kattan donte ne am nañu ci yàlla subhanahu wa taala kattan gu rëy dégg nga yàlla bu muy tagg jibril lan la wax zi quwatin inda zil arsh zi quwatin inda zil arsh yàlla nee na jibril ci man ku am kattan la moo tax yàlla subhanahu wa taala buy alag yenn dëkk mu yónni jibril lu mel ne qawmu luut ak waa aad ak ñeneen ñu demee noonu nee na loolu malaaka yi di am doole yépp amuñu benn pexe benn melokaan ci melokaanu yàlla bal hum ibaadun malaaka yi li fi nekk mooy ay jaam lañ jaam yoo xam ne munaffizuuna li taatillah dañuy exécuter santaane yàlla comme yow ni ngay exécuter santaane yàlla ni nga ragalee yàlla ñoom noonu la ñu ragalee yàlla wala ñu raw la yonent yàlla muhammad mas na gis bi mu demee leelatul isra wal miraaj mikail kanam gaa ngi lëndëm mi ngi ñëkk mi ngi ñemewul sax siiñ yonent bi ne jibril maa lii laa ara mikail laa yaddaxak lu tax mikail mi du ree jibril ne ko dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara loolu rek la yaakaar moo tax du reetaan yaakaar na ne bu ree yàlla dugal ko safara ndax ragal gu mu ragal yàlla ñoom suñ borom moo ñu wax ci quraan ne laa yasuna allah ma amarahum wa yafaluuna ma yamun ma yumaruun suratu tahrim aya 6 wa haulai almalaika malaaka yii ala ma aataahum llahu min quwa wal azama li leen yàlla jox ci kattan ak doole ak daraja fa innahum ñoom ñii ida samiu lwahyi min allah bu nu déggee waxu yàlla yafzaun dañuy xëm wa yusibuhum alxashi dañuy tiit xëm jàpp leen allahu akbar taaziman lillah ndax màggal yàlla wa haybatan lahu jox yàlla cëram lu tax lu tax malaaka yi bu ñu déggee yàlla wax ñu xëm bu ñu déggee yàlla wax ñu toroxlu bu ñu déggee yàlla wax ñu wàcc seen bopp lu tax ndax mun ngeen cee tontu lu tax ah lu tax mbokk yi dañoo xam yàlla ñun xamuñu yàlla ñoom dañoo xam yàlla dañoo xam yàlla mooy kan dañoo xam kattanu yàlla suñu boroom wax nañu ci alxuraan ñun xamuñu yàlla mu ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi xoole yàlla mi ne ëllëg yowmal qiyaam wasama wasamawaatu mutwiyatun bi yamini asamaan dama koy ngëb asamaan yi ñaata la yàlla mu ne dama koy ngëb ci sama loxo ndeyjoor ah mutwiyatun bi yamini allah kon yàlla nu mu toll asamaan si ku ko ngëb noo toll jàkka ji bu benn waay ne woon mun naa ko dank ñuy wax mu yëkkati ko mu ne nii mu wàccawaat ko kuñ na bëree ak moom nooy def ah allahu akbar xoola yàlla subhanahu wa taala malaaka yi nag dañoo xam yàlla mooy kan moo tax waxuma la ñu gis yàlla waaye ñu dégg yàlla di wax rek ñu xam ndax dañoo xam kii mooy kan kii di wax kan la allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu allahu akbar mu ne ñoom malaaka yi wasi wa wa yusibuhum al gishu dañuy xëm taaziman lillah ngir màggal yàlla wa xaybatan lahu jox ko jëmmam moom yàlla wa xadaanan li qawlihi ak toroxlu toroxlul waxam fa ida fazia an qulubihim fa ida zaala al fazu an qulubihim su fekkee dem nañ léegi ba tiitaange gi nga xam ne moom lañ tiitoon génn ci seen xol yi ñoom malaaka yi nga dégg leen yatasaaluna baynahum ñuy laajte seen diggante maaza qaala rabbukum lan la seen boroom wax allahu akbar qaalu alxaq ñu ne leen dëgg rek dëgg la yàlla wax waaw sunu boroom subhanahu wa taala huwa alxaq moom mooy dëgg wa qawluhu alxaq waxam mooy dëgg wa huwa alaliyu mooy ki kawe lahul uluwul kaamil moo kawe kawe gu mat képp ku kawe bisa ngi ñëw nga wàcc fa kam min malikin rufiat lahu alaamat fa lamma alaamat dañuy jël nit ci kaw suuf di ko kaweel di ko takkal garaat di ko kaweel gis nga Macky Sall am na ñu mu kaweel tey wala am na ñu mu wàcce wala dañuy jël nit di ko kaweel di ko kaweel di ko kaweel ba mu kawe yàlla wàcce ko kenn dootu ko yëgalaat yàlla moom moom rek moo kawe kawe goo xam ne kenn du ko jot wallahi moom rek keneen ku dul moom sa kawe bisa ngi ñëw nga wàcc waaw bisa ngi ñëw lal bi nga doon tëdd sax danañ la ko wàccee nga nga waxuma la nga nekk ci suuf waaye nga nekk ci biir suuf yàlla wàcce la boo takkoon ay garaat garaat yëpp yàlla tekki ko dootoo ko takkaat allahu akbar moo tax mu ne ñaata yoon nga gis ci ay buur fa kam mi malikin ñaata yoon nga gis ay buur rufi at lahu alaamaat ñuy taggal waa ji ay mandarga ordre national du mérite ordre xaw ma lion nangam ah diplôme xaw ma sart diplôme ñi takk rek waa ji yéeg bis ñëw yàlla daal di tekki grade yëpp xëcc ko mu daal di rot ci suuf waaw général dégg nga kii mu ne généralu Sénégal démb lañ ko wàcce mu ngoog ñu lay yéegal rek bis ñëw yàlla wàcce la amma borom bi subhanahu wa taala moom moom moom moom loolu ndeysaan wa huwa al ali lahul uluwul kaamil moo yor kawe gu mat gi min jamiil wujuh nag ci mboolem anam yi fii waa ji lu mu kawe kawe kawe ndeysaan dafa laaj ñu nekk ci wetam di ko jàppale am na ku koy defaral yére yi am na ku koy siraasal dàll yi am na ku koy fóotal costume bi am na ku koy toggal am na ku koy wat am na léeg-léeg mu toog ba ci yàgg ndeysaan mu aajowoo boppam hmm, dugg biir duus wala ah ah te buy dugg instant boobu muy dugg du bugg a ànd ak kenn moo tax bureau boo dem ci côté bureau bi am na toilette kër goo dem ci côté bi am na allahu akbar kon doomu aadama matul mbindee fi matuñ yàlla rek a mat jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo tax gis nga moom fa mu nekk yii ma doon wax léegi amu fa buñ demoon buñ yàlla dimbalee ba dugg aljanna danañ gis ne loolu sax amul aljanna amu fa amu fa da ngay lekk di naan waaye loolu amu fa amu fa de boo ko aajoowee da ngay ñaq rek mu daal di génn ci sa yaram nekk parfum bi gënoon neex ci parfum àdduna yi ndeysaan ay ñenn xiit yi ay soj yooyu amul aljanna loolu nattu la toskare la fii ci àdduna moo tax yàlla teg ñu ko moom yàlla uluwu zaat jëmmam ji kawe na wa uluwul qadr kàttanam kawe na allahu akbar wa uluwul qahr nooteelam sax dafa kawe waaw yàlla nooteelam kenn mun koo teggi sa kaw yàlla dooleem xejul ci doomu aadama yàlla kàttanam xejul ci nit ñi yàlla kaweem foo ko takk wees na ko amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem jalla jalaaluhu sunu borom mbokk yi mu ne ci dars bi ci tegu mu ne sunu borom subhaanahu wa taala ci waxtu woowu muy wax ak malaaka yi fa yasmauha mustariqu sam'i wa mustariqu sam'i hakaza ba'duhu fawqa ba'd wasafahu sufyaan bi kaffihi fa xarrafaha nee na bu yàlla di wax ak malaaka yi dafa am ay jinne yoo xam ne ci jamono yooyu tëjagul asamaan yi dañuy naaw dem kaw asamaan yi di déglu jàngeen ci suratul jinn jinne yi ne wa anna kunna naqudu minha maqaida lissami waaye léegi nii fa man yastami l aana yajid lahu shihaban rasada bi yàlla yónneegul woon muhammad sallallahu alayhi wa sallam jinne yi dañuy naaw di dem kaw asamaan di déglu lan yan information ñooy xew bu ñu dégloo information yi ba xam comme day taw suba ginnaaw suba jant bi dañ koy jàpp ginnaaw waat suba tremblement de terre lay am nangam nangam day am jamono ji ñu ñëw di ko wax bu xaaba yi gisaanekat yi su ko defee gisaanekat yi bu lu jinne ñëwee dee leen rek ñu daal di génn ci rajo yi mooy li xew Sénégal ñoo ñu naan ay xoy nawet bi dina bëri deret dina tuuru kilifa dina dee dinañ ko jëlee côté bii jaar ak moom ne côté bële allahu akbar su ko defee jinne yi bu ñu déggee benn dëgg ñu yokk ci téeméeri fen ñan lañ koy wax mooy bu xaaba yi léegi nag suñuy déglu ci kaw asamaan ñoom jinne yi dañuy tegaloo kenn day njool ba doyal keneen ñëw tegu ci kawam départ keneen ñëw tegu ci kawam dem noonu la ñuy def noonu la ñuy def noonu la ñuy def ba yegg asamaan déglu instant bi nu toll nag sunu borom subhanahu wa taala dafa jël ay jum moom la ñuy garder asamaan yi bépp jinne bu dem rek ñu exploser la nga dee moo tax biddéew yi ñaar mbir la ñuy def ci kaw asamaan yi bu ci njëkk wala ñett biddéew yi ñetti mbir la ñuy def ci kaw asamaan bu ci njëkk mooy ñett yëpp mu ci alxuraana beneen bi mooy dañuy jubalaate boo réeree ñaareel bi dañuy fett jinne yi ñetteel ah dañuy dañuy rafetal asamaan wa anna zayanna sama addunia dañuy rafetal asamaan léegi nii bu biddéew yi génnee ba nga génn guddi ci jamono weer ngay gis ndeysaan bi asamaan bi rafet kon ñett yooyu moom la biddéew yi di def foofu sunu borom subhanahu wa taala mu ne allahu subhanahu wa taala huwa almustahiqu lil ibada wahdahu yàlla rek rek moo yeyoo jaamu fi qawlihi subhanahu hatta iza fuzia an qulubihim ne aaya bi aaya bi yàlla wax ci suratu saba aaya 23 nee na aaya bi dalil la dalil bu leer nañ nañ ala wujubi ifradillahi bil ibada ne yàlla rek rek rek rek rek moom moo yeyoo jaamu mbokk yi aaya bi nan lay wane ne yàlla rek lañ war a jaamu kan mooy tontu xam naa dinaa def ni cheikh bi defoon barki démb ci télé bi benn cheikh ci Arabie Saoudite dafay def waxtaan mu indi ay cadeau yu baree bari ay montre ay portable ay saak ay ay ay ay mu def ko ci ginnaaw su posé benn question ku xam rek mu yëkkati benn ne la am dinaa def noonu de dinaa wuti ay portable yu bëri ma teg ko fi sama wet ak ay saak ak ay ay ay ay su ma waxee rek ma laajee ku trouvé rek ma jox la ma ne aaya bi lan moo ci wane ne yàlla rek lañ war a kental lañ war a kennal yàlla aaya bi yàlla ne hatta iza fuzia an qulubihim bi tiitaange gi deñee ci xolu malaaka yi aaya bi lan moo ci wane ne yàlla rek lañ war a jaamu ah bismillah ah yàlla dane malaaka yi bi tiitaange gi dañee ci seen xol boroom xam-xam yi ñu ne aaya bi dalilun wa burhanun waadi ala wujudi ifradillahi bil ibada aaya bi dalil la buy wane yàlla rek rek lañ war a jaam yàlla rek moom lañ war a kennal aaya bi lu tax wala ma xaar ñeneen ñi mu ne wa ala butlaanil uluhiya al malaika mu ne aaya bi day wane ne malaaka yi du ñu yàlla lu tax du ñu yàlla is anna man yuridu lahu lxawf walfazu walxachiyu laa yuslilu lahu ilaha kuy tiit kuy tiit war nañ laa jaam malaaka yi yàlla dafa wax ñu tiit xëm kon kay waruñu leen jaamu bi tiitaange gi jeexee ci ñoom ñu ne lu yàlla wax ñoom bi yàlla di wax sax mënuñu koo dékku dañoo xëm biñ demee ba tiitaange gi jeex ci ñoom lanu taxaw ñoom di laaj ñeneen ñi nga xam ne ñoom taxawoon nan naan leen lu yàlla wax boroom xam-xam yi ne kon lii dalil la kuy tiit doo yàlla ah kuy jàq doo yàlla ku am ay problème doo yàlla ku am ay jafe-jafe doo yàlla ku ñu bind doo yàlla ku ñu jur doo yàlla kuy dee doo yàlla ku am ay aajo yu fajuwul ngay feebar say soxna di feebar say doomi di feebar ñii di dee ñu bëgg laa def yàlla ah ah waaw allahu akbar Sénégal yi nga dégg man yàlla la diw yàlla la du ngeen ko dégg yàlla buy feebar yàlla buy dee yàlla bu am jabar diw yàlla la bu guddee mu tëjoog jabaram kooku yàlla la ah reewande rek moo fi nekk ak ñàkk xam tawxiid ak ñàkk xam yàlla waaye xoolal malaaka yi nga xam ne xam nañ yàlla ñoom waxuñu ñoom ay yàlla lañ pourtant am nañ doole de am nañ kàttan de waaye xoolal ñemewuñ ne ñoom ay yàlla lañ parce que dañoo xam yàlla moo tax bi yàlla di wax ak ñoom dañuy xëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na koo xam ne da ngay tiit di jàq di ragal laa yuslih lahu lil ilahiya yow daganul ci yow jaaduwul ci yow ngay nekk yàlla fa man abadahum képp ku jaamu ñooñu wastaxaasa bihim wala mu xettaliku ci ñoom aw daahum wala mu leen di ñaan min dunillah faqad waqaa fi shirki l akbar gis nga chaque jour borom bi subhanahu wa taala suy wax ne moom la ñu war a jaamu waruñoo waruñoo waruñoo day joxe ci lu ëpp doole doomu aadama su yàlla waxee malaak joxe ci ñoom misaal te moo fi ëpp doole ginnaaw kon kan kan keneen lañ ci war a tegaat maanaam kër gi bu fa benn waay duggee di tiital baay ji kon doom yi ah bu benn waay duggee ci kër gi di terroriser borom kër gi yor jaaseem di terroriser borom kër gi est-ce que tax doom yi tax na ñuy wax allahu akbar kon borom bi gis nga même bu muy wax ne bu leen jaamu la tasjudu li shams wala lil qamar gis nga bi muy wax problème sujjóot dane bu leen sujjóotal jant bi lu tax xam ngeen ne jant bi kenn du ko natt ci nit ñu ne déet mu ne weer wi ñu ne kon mu ne fas judu lillah su ngeen si jootal yàlla parce que ñii li ñuy am am kàttan ñoo ëpp doomu aadama doole kon suñu borom subhanahu wa taala bu ñuy won ci li am doole misaal kon leneen yambar yi taxul ñuy wax ñu néew doole taxul ñuy wax mbokk yi képp koo xam ne da ngaa xettaliku ci malaaka wala nga koy ñaan wala nga jaamu ko yëgal na yow dugg nga ci bokkaale yàlla bu mag bu mag boobu nga xam ne yàlla du ko baalaate qaala baadul ulama fi hadhihi al aya lenn ci borom xam-xam yi wax nañ ci aaya bi innaha taqta'u uruqu shajarati shirk min al qalb nee na aaya bi képp ku am képp ku gëm yàlla képp ku bëgg yàlla aaya bi boo ko déggee dafa war a dagg ci sa xol buumu bokkaale aaya bi ñu wax sànq képp ku dégg te daggul buumu bokkaale ci yow ci sa xol yow bu yeboo nga xoolaat sa bopp képp ku dégg aaya yii delluwaat dafa ne am na doomu aadama wala mbindeef wala garab wala suuf wala ndox wala wala wala wala lu mën yow bu yeboo nga yërëm sa bopp bu yeboo nga saraxal sa bopp xam ne yow dootoo baaxati dootoo jag adduna doo jag alaxira ixwatal iman bu ñu continuer xadis bi mu ne ñi mu doon wax sànq mu ne fa yusmau lkalima fa yulqiha ila man taxtahu summa yulqiha al axar ila man taxtahu xata yulqiha ala lisaani sahir aw ilkahana fa rubbama adraka alshihaabu qabla an yulqiha wa rubbama alqaaha qabla an yudrik fa yakzibu maaha miata kasbatin fa yuqaalu alaysa qad qaala lana yowma kaza wa kaza wa kaza fa yasduqu bi tilka alkalima allati samiat min alsama buxaari moo solo hadis bi nee na alkahanatu wa mustasriqu sam'i nee na bokkaa buxaaba yi ak ñiy sàcc wax nee na yarkabu sheytaan baaduhum fawqa baad xata yasilu ila xaysu yasmi yasmauna alxadisu almalaika bil amri alladi yaqdiha allah nee na seytaane yi dañuy tegaloo ni ma leen ko waxee sànq dañuy tegaloo su sufiyaanu sawri wax na nu ñuy tegaloowee mu misaal ko ci ay baaraamam nee dañuy tegaloo lenn ci kaw lenn ba ñu yegg ci barab yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi fa dajale malaaka yi di namm dogal benn mbir ci asamaan yi nee na boxa mala jinne yi bu ñu dégloo ba pare ñu daal di wàcc ñëw ci jabarkat yi xam ngeen ne diggante jinne ak njabarkat dafa am lëkkaloo jinne ak njabarkat dafa am lëkkaloo dafa am lu leen lii dañoo jàppante kóllëre danga may defal dama lay defal ñun ñaar ñu ànd bis boo trahiré jinne yi ñu daal lay alag léegi nag seen lëkkaloo lan la mooy da ngay weddi yàlla wa maa yuallimaani min ahadin xata yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur jinne yi duñ jàngal kenn njabar lu dul dañ la ne ñun kat yàllaa nu natt yow bul weddi yàlla ñun ay yéeféer lañ jinne yéeféer la ku muy jàngal njabar wala ngay léeg moom daf lay jàngal kufru lan la lay wax yow kat yaay ilimaanu jàkka ji waaw fexeel ba booy julli na nga am janaaba waxtu yëpp ngay jiite nit ñi ak janaaba wala mu dem loola àll ba ci kaamil wala mu takk loola kaamil sa ñaari tànk nga def ko ay dàll dugg ak moom biir duus wala nga jël alquran daal di koy bind mbërëg loolu jigéen ñi di gis mbaax ah wala nga bàyyi benn ponk ci ponk lislaam yi da ngay bàyyi julli wala nga bàyyi woor nga nekk ci biir julli di ñu naan nangam nangam fekk doo julli wala doo aji màkk wala doo julli juma dañ lay bàyyiloo leen moo tax sunu kilifa yi koo ci bëgg a xam yéeféer la rek xool ko ci ponk lislaam yi am naa benn jigéen bu mu woo téléphone mu ne ma sama jëkkër nang nii la ma takkee dama soxla dama am benn waaye bu ma doon génnal ay at ma yàkkam ci pour waa ji takk ma ma dem ci benn buxaaba du ma wax sëriñ ma dem ci benn buxaaba ma ne ko léegi dama ma jox ko turu waa ji turu papaam turu yaayam ma ne ko dama bëgg nga dimbali ma pour waa ji xelam nekk ci man mu takk bi gaaw waa ji daal leen di dëddale daal di détourné xale bu jigéen bi ci boppam daal di koy takk xale bu jigéen bi moo ma nettali mu ne nii la ma takkee deuxième mooy dama seetlu waa ji day jullitam ngeeg janaaba wala muy julli te du jàpp ma ne ko loolu simple la parce que dafa ànd ak seytaane seytaane kenn du ànd ak moom di jaamu yàlla mu sell soo sellalee ñu dem bala soo sellee ñu bala kenn mënta julli di jàpp di set di julli di jaamu yàlla seytaane ànd ak yow mënul nekk bis boo bëggee am seytaane nag da ngay weddi yàlla seytaane yi ñoo def la xarit di ànd ak yow di la defal say mbir nga leen di yónni ñu lay liggéeyal loolu kese la koo fi dégg ñu ne ay jinne la yor dafa weddi yàlla yéeféer la bu dee dee dem safara ñépp nag ñépp nag laa wax fi may wax ak mi ak yéen seen xel ki muy xalaat ne kooku kooku laay wax yéeféer la waaw dafa am ko ngeen di xalaat kooku sa xel nekk rek kooku laay wax kooku yéeféer la képp ku am jinne yéeféer nga parce que jinne ku weddi yàlla rek rek rek rek rek lay àndal du ànd ak ku baax mukk mukk kuy jaamu yàlla kuy sellal jinne yéeféer ku jinne jullit nu muy def jinne jullit du buxaaba du buxaaba jinne jullit du buxaaba déggoo alquran moo ñu nettali suratu junni wa inna minna salihun wa minna alqasitun daf ci am ci ñoom ñu baax ñooñu duñu ànd ak buxaaba yi ñi bon ñi ñooy ànd ak buxaaba yi ñi weddi yàlla moo tax man la yéeféer yi ñooy ànd ak nit ñi yéeféer yi nit koo gis ci àddina bi mu ànd ak jinne nekk buxaaba nekk njabar nangam nangam xoolal li leen jinne yi def loo lay tuurloo lay tuurloo di la reyloo ngay sangoo deret nangam nangam di la di la kéeféer rek lañ lay defaloo kéeféer jënd loo la sàngara wala tey pour nga dem ruqya bi sharia waaw yu jullit yu jullit lu baax lay def moo tax yu baax la am ñooñu ay jullit lañ ñi def kufru laa wax ñi lay digal kufru yëpp ay yéeféer la waaw parce que gis naa ci kenn moom souvent dañuy éviter émission mais dañuy di wax ci alxuraan di wax.
te yooyu yooyu laqatukaay la Déjà loo koy gis muy ma ne yëngu ay affaire yooyu laqatukaay la rek ñi nga xam ne dañuy ñëw naan man alxuraan laay fajee yooyu ay laqatukaay la parce que yow jullit nga boo fa demee mu ne la yëfu yéeféer laay def dootoo fa dellu mais yëfu yéeféer lan leen di def loo lu tax da ngay ñëw mu ne dama indi nag bu ñuul loolu yéeféer moo koy def ah demal ba place sàngam nga rey ko fa loolu yéeféer yi ñoo koy def loolu mooy wane ne ñoom ay yéeféer la ak yooyu ñeengo yooyu ñuy def yëfu yéeféer la saa yoo ñëwee ci fajkat ah mu lay laaj ay mbir rek yéeféer la waaw wala ñu jël alxuraan bi di ko jaxase ak ay xaatim wala mu yor ay pétaaw du seet wala muy gisaane ci suuf wala muy làkk-làkk boo xam ne déggoo ko salaali muhammad wa alaali muhammad jiifi jaafa daf jafta jafiyan karja marja yooyu noonu yéeféer yi ñoo koy def ay jat loolu ay jat la li may wax nii moom moom ci wax moom day day jël sax ah yéeféer la du jullit kooku du jullit yéeféer la génn ci lislaam bu yàgg soo ko toppoon wala nga dem këram wala nga gis ñu ko jege am na lu mu bàyyi ci lislaam benn du dem jàkk wala du julli waxtu yu juróom wala du woor wala du joxe azaka wala du aji màkka wala day julli sans jàpp wala du sangu janaaba wala day jël yëfu jigéen ñi di ko binde alxuraan wala mu jël kaamil dugal ci biir duus benn jigéen ñëw na sama sama daara may waxtaan ak moom ci wàllu njabar mu ne ma benn sëriñ benn buxaaba moo ko seet si woon démb nee na di bu ko seetal mais pour mu seetal ko dafa ne ko dama nga marché nga jënd petaaw ak soow bi mu ñëwee mu jaxase petaaw bi ak soow mi daf ko ci bool ne ko dugal ko ci biir duus bi nga tëj ko ndaw si jël petaaw bi ak soow bi dugal ci biir duus ba mu am 30 minutes mu ne ko indi ko mu indi mu jël petaaw bi teg daal di naan soow mi ne ko kaay ma seetal la lu tax xam ngeen ne duus mooy place yu jinne yi jàng ngeen ko booy dugg ci duus lañ lan la wax nga wax allahuma inni loolu lan la xubus ak xabaayis lan la seytaane yi góor ak seytaane yi jigéen yi jinne yi ñu ngi dëkk ci biir duus yi moo tax mu dugal ko fa kon dañoo lëkkaloo lëkkaloo lañ def lëkkaloo waaw dañoo associé mais léegi comme par exemple sax boo amee benn xale boo xam ne comme fii da ngay am xale bu feebar ñu ne la demal ñu fasal ko loolu fas loolu.
fas baaxul fas fasak takk petaaw ak takk xaaw ak loolu da yëpp daf xaram boo amee xale bu feebar bu jinne yi laal da nga koy mocc ci alquran ak sunna yaa nga ci nopp bi ayatul kursi yu amana rasul fatiha ak aaya yi nga xam ne ñoom ñooy dindi seytaane génn seytaane ci wala nga nodd ci nopp yi yooyu ñooy ñooy génn seytaane ci bu bu laal nit bépp fas dafa xaraam bépp fas jullit du takk fas jullit du takk xaaw jullit du takk pettaaw yonent bi nee na ku takk dara yàlla bàyyi la ak loolu ku takk dara yàlla bàyyi la ak li nga takk
même bu fekkee ne alxuraan kese kese la jënd ku takk dara dara man allaqa shay'an wukila ilayhi ku takk dara rek yàlla bàyyi la ak loolu dara dara dara man allaqa shay'an yenent bi nee na man allaqa tamimatan fala atama allahu la képp ku takk gàllaaj yàlla bu yàlla matal ay affaire am waaw mu ngoog yal na mu yàlla musal ci loolu la aaya bi wax kii li mu wax laay firi wa min charri yal na mu musal in nafasaati kuy tëfli fil uqadi ci ay pas-pas kon quraan aus bi day falaq doy na loolu la aaya bi di tekki wa min charri yàlla maa ngi lay muslu ci musiba képp koo xam ne in nafasaati dafay tëfli fil uqadi ci ay pas-pas mooy boole wëñ gu weex wëñ gu xonq wëñ gu ñuul di tàkk ak a bëri fii ndox mu naan wala mu sangu loolu dagan na loolu dagan na wala bu dee alquran loolu dagan na borom xam-xam yi maye nañ ko alquran wala wala nga jàng tëfli ko ci ndox Hmm? boo demee nga dagg ko nga mocc ko ah ayis ko bi mbaa fa yow bul fay de te boo demee daggal fas bi nga mocc ko aizu ko bi kalima jigéen na wala góor aizu ki ngay def bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma bu dee jigéen aizu ki bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma soo yeewoo suba nga defal ko ñett tufli ko fii métti boo yeewoo faja kii eh, timis bu ñu jullee timis ba pare nga defal ko yéen ñëpp jàng ngeen ci sunna yonent bi saa salaam nee na boo amee fu lay métti suñu problème yëpp mooy dañ dul jàng sunna dañ dul jàng la nga xam ne moo nuy aar du ñu jàng ñaan yi ku jàngul nag fa nga takk yonent bi nee na boo amee fenn fu lay métti kii bi ñuy ñëw léegi-léegi ci yoon bi dafa jékki-jékki mu ne ma sama fii mu ngi métti ma ne ko da ngay wax bismillah juróom-ñaari yoon nga ne auzu bi qudratillahi wa izzatihi min sharri ma ajidu wa haziru nga tifli ko ci en tout cas dama xam naa ne lu lu lu nekk ci ginnaaw bismillah yi du ko mën mais dama ko ne da ngay wax bismillah bismillah bismillah juróom-ñaari yoon nga tifli sa loxo daal di koy raay mu def ko bala ñuy jéggi tamit mu ne ma sedd na guy kii nii wallahi léegi léegi bi ñuy ñëw kon loolu ngay gëmloo sa waa kër mais boo leen gëmloo ay fas-fas ay reen ay kii ay lale saa yi xëy dañuy dem boo demee na nga jël ciseau dagg xaaw gi dagg liñ ko takkal amul benn njëriñ ah loolu nag mooy isa tazahama adadul mafasid nartaki adna mina bu dee bu ndaw lañ ko takkal te boo daggee bu ndaw bi ñu indil ko bu gën a ngand boo munul kon bàyyil bu ndaw bi waaw loolu mooy chaque jour borom xam-xam yi dañuy wax ne lu bon bu dajaloo lu bon dañuy jël lu gën a ndaw bu fekkee kër ga kilifa ga fa nekk toll na ci loo xamante ne boo daggee lu ndaw li mu xëy suba indi ji béjjën kon nag bàyyil bu ndaw bi bàyyil bu ndaw boobu moo tane waaw loolu day am mais bu fekkee nag dara du ci së- du ci nekk boo ñëwee jëlal ciseau daggal te di ko mocc nag donte ne ñu ngi ko takkal loolu sax boo ko dindee fitna day am mais yow dafal de- dee ko mocc te ñu xam ne lële moom du indi tus du indi dara mu ngoog Abdullah ibnu Mas'ud wala kenn ci ñoom gis na jabaram takk lu mel noonu waaye dafa dugal loxoom ne ko ibnu Mas'ud ak ay mbokkam doylu nañ li daal di koy dagg daf ko dagg yaakaar naa kitaabu tawhid li ñu romb ci ay pas-pas jàngoon nañ ko ci fas ak xaaw ak yooyu ñuy takk yaakaar naa romboon na ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ñëw ci dars yi mbokk yi suñu continuer mooy danañ gis ne njabarkat yi ak jinne yi dañoo am lëkkaloo gu ñuy lëkkaloo loolu nit ñi foog ñu xam ko njabarkat boo gis dafa am ay jinne ay seytaane yu nekk ci ginnaawam ak bu xaaba fa rubbama adraka shihab mu ne yenn saa yi nag ñoom ñuy déglu ji ci kaw asamaan yenn saa yi ay jum fekk leen fa exploser seen kaw mu ne yenn saa yi ah ñu déglu avant xëy na euh, jum bi di yegsi lenn leelu ñuy dégg moom la ñuy wàcc di informer seen bu xaaba yi su ko defee bu xaaba yi daal di ciy yokk jàng ngeen wala déglu ngeen jamono yële paase am na benn jigéen bu fi nekkoon minute bu nekk mu génn ci benn télé daan ne nangam nangam nangam nangam gaa yi xëy di fa dem cinq cinq mille la doon seetee bi bi nit ñi baree mu def ko dix mille francs ba pare ut nombre bu muy seetal par jour ne quarante personnes fa laa yem gis nga waaw loolu alxuraan islaam nettali nañu ko bu yàgg yàgg yàgg jarul jarul waaru jarul yéemu mbokk yi qubulu nufuus ad daifa lil baatil fi ñuy jeexale mooy def ci am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo faible dañoo faible seen ngëm dëgërul dañoo gaaw a gëm defe naa foog naa yaakaar naa dañ koo gaaw loolu moo tax gaa yi di làqatu ci seen ginnaaw gis nga maire bi tey bi mu demee ci waa ji ne ko ñaanal ko su ne woon bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah jàng faate ba mu jeex daal di koy tëfli rek daal di dem amaana ñu jàpp ne waa kër gi jàpp ne moom ci tus la ko defalu waaye looloo tax ñuy jël affaire yooyu wëñ googu ak yooyu ñuy def tëfli yëy guro ba mu xonq daal di koy tëfli ci affaire bi xonqal ko bu doon këyit gu weex la ñu xonqal ko wala su ko defee nga yaakaar ne daraan ci fekk tus nekku ci tus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ku am lu lay metti wala ku feebar wala ku ginne jàpp nan la ñuy def ba loolu dal la bàyyi la te doo ci mooy yàlla subhanahu wa taala nee na bu fekkente ne seytaane yi nee na yakzibul kaahin awi saahir njabarkat bi wala seytaane bi day fen min tilkal kalimaat allati alqaaha ilayhi waliyu min alcheytaan nee na léeg-léeg njabarkat bi fen ci baat yooyu nga xam ne kilifaam gi seytaane bi daf ko koo wax mi ah miatu kasb téeméeri fen wa yazidu wa yanqus yenn saa yi mu yokk sax yenn saa yi mu wàññi su ko defee ñi nga xam ne ndeysaan amuñu pas-pas bu dëgër ci yàlla gëmuñu yàlla dëgg dëgg dëgg ñoom la njabarkat yi di utiliser lu leen njabarkat yi wax ñu wax boo xëyee suba dama nga teg fee ñeenti nen jëlal juróom-ñaar yu weex perkaal bu weex nen bu nen xam nga dafa weex sondel guro bu weex nga teg ci juróom-ñaari puso fexeel ba booy dem bu la kenn gis jógal xaaju guddi teg ko ci sele bi yoon boo ko tegee bul gestu même boo déggee ku lay woo bul gestu gis nga di la terroriser ndeysaan boo ñëwee ñu la mbaa def nga niñ la ko santaane ndeysaan gis nga wala bu dee xar la ñu ne la utal xar mu ñuul kukk na lépp ñuul bëdi sax na ñuul bu dee nag ñu ne la na lépp ñuul gis nga yu mel noonu yooyu la jabarkat yi di utiliser ci kaw ñi nga xam ne ndeysaan gëmuñu yàlla su ko defee nga nekk jullit nag nga dem sangoo deret jooju ba pare nag nga bëgg a ñëw ci jàkka ji nag ne yaa ngi julli loo fi wut loo fi wut ah looy wut ci jàkka ci munoo ne yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba pare def la munul nekk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in munoo nekk ci kanamu yàlla di ko wax ba pare di gëm yooyu ndeysaan di am ay tuur léeg-léeg nga dem Dakar nga dégg ñu ne ilimaan bi am am na tuur këram ilimaan bu am tuur këram ak a bëri ci lébu yi dëkku lébu yi ak a bëri ay tuur ak dëkku séeréer yi ak a bëri ay tuur léeg-léeg nga dégg ñu ne ilimaan bi wala xalifa général bi am na tuur ci wanagam ndeysaan Sénégal am na benn xalifa boo xam ne dafa am tuur ci biir wanagam tuur day tuuru ba pare génn ndeysaan doog a julli te day tuuru yal na nu yàlla jubal yal na nu yàlla won dëgg mu won ñu ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu ñu téye ci yal na nu yàlla won neen mu wërsëgal ñu ñu xam ne lii mooy neen mu wërsëgal ñu ñu sori loolu moo doon dar si tey ngi jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.